mbay mbay naka mu. sant yàlla sant yàlla baax yaa ngi am jàmm ñu ngi sant yàlla baax a baax. promoteur tey mbëri woote association des lutteurs en activité euh, teewaay bi lan la. waaw teewaay bi ñu ñëpp a ko yëgandoo te ñu ñëpp a ko bokk. te yaakaar naa ni kenn rek bu wootee war nañu mën a teew. waaw moo waral suñu teewaay tey. Mhm. mu mel ni dañoo jël benn combat boo xamante ne dañ ko war a mëne muy bëgg a bëre. parce que xale yi nga xamante ne ñu ngi ci làmb sonn nañ am na loo xamante ne ñu ngi koy jonkanteel yow nga doon promoteur joxe sa avance lu yàgg ba tey xamoo fan nga féete loolu lan nga ci mën a wax. xam nga loolu dafa metti rawatina ñun metti na si ñun mais lu mu metti metti si ñun dara gënut a metti mooy ndaw yi nga xamante ni tey dañuy yaakaar làmb amuñu liggéey amuñu dara si lu ñu téye war a mën a am euh, ñëw sa làmb ji am lu ñu foraatu pour mën a yóbbu seen waajur war a mën a am si lu ñu téye comprendre kon loolu yaakaar naa ne bu demee ba am gars yi war na si mën a dox seen i jéego na gouvernement bi comme tey sama conférence de presse ma doon amal rek yu demee noonu laa si doon wax te tey ji nguur gi dafa war a ñëw dooleet ñu comprendre mais tey warul mën a taxaw tey boo di ñu seetaan xam nga franchement dañu seetaan trop trop te warut a mën a demee noonu ko war nañ mën a gëstu waa làmb ji. jërëjëf Mbaye